ngi leen nuyu ah di leen ndokkeel di leen ziar di leen wax ramadan mubarak koor gi nag ku ne xam ne ne ñoo ngi ci deuxième mi-temps bi dañu ñaan yàlla mi nga xam ne mooy buur moom mi ñu mayoon kàttanu ànd ak yéen ci fukk fan ak juróom yi yàlla nu yàlla sunu borom may ñu yeggale ko bi jaay Cheikhul Khadim tey nag ñu dellusiwaat ak ci yéen seen émission café ramadan tey nag ñu ciy dalal koo xamante ne que vraiment jeune bu dynamique la boo xamante ne que wane na à son savoir faire euh, fële nga xam ne moom mooy dëkk bee di Touba ñu gën ko xamee Cheikh Abdoulaye Touré di responsable politique euh, bu Benno Bokk Yaakaar wala soit que bu APR tey nag ñu fas yéene ànd ak moom waxtaanee des questions d'actualité concernant euh, pratiquement la vie de Touba ak li nga xam moom mooy réew mi Cheikh Abdoulaye ñoo ngi lay nuyu bàyyi la nga nuyoo ak ñu lay seetaan sur Dakaractu. waaleykum salaam Bour Gueye ñu ngi waa réew yëpp. di leen dokkal ci weeru koor wu màgg wu tedd wi ñu nekk ñaan suñu borom ñu jeexal ko ci jàmm te luñ ci jàmm yàlla mu nangul ñu ko defal ñu fekk ko at yu bëree bëree bëri di baalu àq ñëpp di baalu àq ñëpp asalaamaaleykum. Hmm. Cheikh Abdou directement ku ne xam na ni élection yi passé subir ngeen défaite bu lourd comme na ngeen ko daan subir biir Touba lan mooy expliquer loolu te boo xool en terme de de réalisation mën nañu wax ni que le président de la République li mu jot def ci ay euh, ci ay ci ay réalisation mën nañu wax ni que benn président def ko de Senghor à aujourd'hui waaw question boobu moom day ñëw di ñëwaat saa su ne. Mm, mm. yàgg naa cee wax te li ma ciy wax rek mooy li ma waxoon daaw waxaat ko daaw jekk mooy Touba dafa rëy dafa nekk dëkk boo xam ne nii bu nekkee mooy deuxième ville Sénégal wax dëgg yàlla dëkk la boo xam ne nii mun tey may yeneen dëkk yi li ma d'accord te yàgg koo wax mooy président Macky Sall ni muy politiquer dakaar di ko politiquer Thiès di ko politiquer Ndar noonu lay politiquer Touba. Mm-hmm. loolu rek mooy problème bi maanaam boo fa demee di wax ak nit ñi dangay sentiir ne ñu si bari bañuñu ko. waaye dañoo gisul kuñ waxal te lim def Touba ni wax nga ko léegi nii lim def Touba wax dëgg yàlla ci président yi fi jaar yépp kenn ku mën a dem xool bilan bi teg ko da nga xam ne la mu fa def kenn defu ko ko fa. jàmbaar la wax dëgg yàlla daf na fay infrastructure yu mag a mag a mag a ci mujj rek barki dem moo Ndiaye mooy hôpital bi nga xam ne nii niveau 3 la. mu def ko fa am nga ak somme bi ñu ko def toll ci vingt 27 milliards loolu du du yëfi caaxaan. Mhm. te loolu yëpp bëgg liggéey dëkk ba moo tax mu def ko te bokk na ci. Euh, li nga xam ne moo gën a mag ci ci ci lim def ci ay infrastructure am Ila Touba bokk na ci. ba mm-hmm. quatre cent quinze milliards la. loolu itam kon xam nga ne yëg na tubaa xam na tubaa mooy lan te loolu wax dëgg yàlla man bi ma koy jàppale deuxième tour yi bi ñu toogee bi ñu waxtaanee dama ne ko ñun bokk na suñu condition mooy nga taxawu diine ji soo gañee bi ci des itam Touba bu ñu dëkk bëgg nañ nga toppatoo ko mu ne ñu Touba moom. ku doonul nitu diine l'islam sax mais bu nekkoon da ngaa réew mi la nga fa war a def da nga ko fa moo moo moo moo laaj loolu mm. loolu nag ba mu ne wax dëgg yàlla saa yu xëy ci lay nekk suba ngoon ci jëflanteem ak waa dëkk ba nga ko moom mooy askanu Mbàkke wax dëgg yàlla ñoom itam jëflante bu rafet la am ñoom ay rëq-rëq nag dana am ci politique bi mooy dafa amul ay relais ci biir dëkk ba mooy ñoo xam danañ ko mën a demal ci biir nit ñi waxtaan ak ñoom parce que politique moom da ngay jéem a convaincre nit ñi rek loolu moo fi am Mm. da nga dem ci nit ñi waxtaan ak ñoom wax leen lim fi daf yéeneem ci réew mi expliquer leen loolu nag moo fa manqué loolu moo tax saa yu ñu demee ay jafe-jafe day am moo tax toujours dama koy wax Touba benn nit mënu koo coordonné da ngay ay nit ñu bari la fa nekkal ñu a nekk yow di la jàppale politiquement bu weesoo sa diggante ak sëñ bi ak ñi nga am am lanteel foofu ñuy ahlu Mbàkke nga wàcc ci population bi ndax. mais dafa mel ni fasu doon daw la ba mu yàgg taxawaa mën wax ni que naam subir ngeen fa ay défaites. maanaam dans le passé mais jàpp nañ ne que ci législatif yi maanaam ci local yi ñu jógee xëj na dana wàññeeku parce que gis nañ yeneen tête yu bees wala dafa mel ni choix choix liste nit ñi la nit ñi critiquer waaw soit bi dina ci am parfois choix bi dina ci am ndax xam nga APR itam dafa xaw a compliqué parce que seen biir itam nasoo gi ak jàppoo gi jàppalante gi dafa des ndax heure boo tànnee kenn ñenn ñi. ñenn ñi war a tànn mer. xam nga daal di dem di liggéey ci suuf pour yàq pour kooku bañ am ndam. te daanaka loolu gis naa ne amul njëriñ ndax ginnaaw kenn la ñuy liggéey rek li baax mooy moom bu fekkee ne joxe na ndigal ci kenn ñi si des ñëpp ànd loo topp ñu liggéey am ndam ndax loolu mooy suñu sag mooy sagu ñëpp waaye daf mel ne nii nit ñi duñ ko gisee noonu mm. ba tax na bari na daanaka saa yu amee soit bu mu tànn da nga gis ñeen ñoo xam ne dañuy nekk beneen côté duñ ca ànd ba ci Matar Diop mi mujjee Mm. mujjee tànn nii rek. ci choix moom gars yi critiqué nañ ko. waaw ah, critiqué nañ ko xaw ma quel est le problème ba gars yi euh, par boo xoolee am na yeneen kàngam yoo xam ne ñu ngi woon biir Touba. waa xam nga li tax ñu critiqué ko mooy buñ jubee ci mel nii muy local yi ak législatif yi ñu jëm nii ñu bari dañuy taxaw di xaar pour ñu tànn leen. Mm-hmm. président nag moom moo ñu ëpp information moom moo gën a xam kan mooy. possible bi nga xam moo gën a baax mën na am information ba mën a xëy na ku mel Cheikh Lat Gaynde Fatma tey nga mën ko jëndee ku mel ne Matar Diop ko am na incohérence mu foofu waaw man foofu sama jàngat foofu li ma gis mooy damaa jàpp ne Cheikh Abdou Lahad maanaam conseil départemental moom mën na am cër bu ëpp loolu hmm. ndax Touba rëy na rëy goo xam ne moom la mu fa a liggéey la mu fa war a def du conseil départemental mooy tax mu mën koo def man li ma jàpp mooy ñu amee li nga xam ne moom lañ bëgg moom mu nekk ministre boo xam day am bu defee la nga xam ne war nañ ko def Touba lu ci bari moom. waaw ah, parce que Touba waaw kay te moom amee na njàng mi. Hmm. mate na ko amee na njàng mi wax dëgg yàlla xam-xam baa ngi fi moo tax ma jàpp ne poste boobu nekkutoon poste boo xam ne moom profil la woon pour moom mu mën caa dem. damaa jàpp ne dañoo waroon tànn kenn moom mu jàppale ko mais moom la ci des moom mu am ne la mu war a mën a def a def. Hmm. moom a def. bi dafa saf commune de département de Mbacké région de Diourbel. waaw ngeen ko c'est c'est quand même inadmissible wax. non non Mbacké mon Gallo Ba moo gagné. Oh, hmm. Gallo Ba moo gagné. Oh, hmm. wax dëgg la liggéey fa liggéey bu rafet wàcc ci nit ñi waxtaan ak ñoom saafante ñom gagné commune Mbacké euh, mais boudé Djourbel dafa am ko xam moy Malik Fall mo fa nek. Hmm. Euh, xam nga politique nak ñaare ni ko nit ñi di gisé kan ko nek ak sa stratégie. waaw boudé ko côté local local mom affaireu gox la. gox nag bu ñu koy xëccoo ki gën a gee population bi rek xëy na moom la ñu gën a jox nopp. te Malick euh, ci li xam ci moom mooy day nekk ci biir nit ñi leen jàppale ba pare woon ku xew la gis ko mu gis ko di nekk ñoom ci naana naanandoo ataaya waxtaan jege population ba daal. xam naa jombul tamit néew mën a daam dina ko def waaye xëy na moom moo koy ëpp jot gi pour def ko ndax daam tamit xëy na comme na moom ministre la liggéeyam da ko du ko may yenn yenn jot yi xëy na Malick moo ko gën a am jot ci côté boobu moo tax itam moo ko gënoon jege bi ci li ma jàngat man li ma gisee 2014 hmm. bi ngeen ñàkkee mën nañu wax ne ñu bëri ci ay chaise instable lañ toogal mooy ñi demoon ñëpp ñàkk Macky daf leen wàcce ñu gis ni élection yi passé c'est pas le cas bi la woon élection locale waaw mooy li ma doon wax léegi rek xam nga xam nga président mom mom information yi nek moñu koy ëppale. Hmm. ndax leen lu nek dana xam bu ko defee ban conséquence lay jur. Hmm. parce que politique tam dafa and ak euh, ngay def ay calcul. xëy na bële na né sanctionné mo gën mu sanctionné xëy bi tam japp na né sanctionné gënut ci mom dafa wara gëna dolé lim am au lieu mu di ko parce que fi ne nii am na noo doon doxalee xëy frustration dana bari te yaa ngi jëmaate beneen jongante boo dafa laaj légui nga rassembler wat ñi nga. amul ñëpp japp ce que jàppoon ne dafa commencé douter au waa jàpp ma loolu sax ma damaa jàpp rek dafa toll ci jamono boo xam jàpp na ne fi ne nii dajale moo gën ci moom wàññi parce que am na noo xam ne boo ni doxalee rek li nga amoon day wàññi ko te xëy na li ngay amaat mën naa am du mën a remplir loolu. Hmm. te fi nii comme jamono nag euh, dafa jàmmaarloog benn opposition boo xam ne nii xëy na seen mi ngi commencé yokku léegi li gën mooy fexe ba ni nga am nga téye leen ba pare wuti ñoo ci yokk indi leen moo gën ngay wàññi ba pare booy hmm. wutiwaat ñeneen jamono ju ñu jëm moom frustration baaxul ci ci APR. baaxul ci benn bopp remaniement bi annoncé woon nañ ko annoncé ki annoncé ko waa ji dëgg euh, dëgg bal bi mel ni ku ko fàtte. ah prérogative moom la moom mooy nommé moom mooy bañ a nommé yóbbu na loi bi léegi loi bi wate am na droit fal premier ministre ah na moom ci jàngatam ak ni muy xoolee Macky nag moom ko xam politique la. moom xam naa ne xam naa ne koo jàngal moom mokkal na moom. léegi nag mm. moom xam naa moment bi mu koy def moom mooy choisir bon moment lay lay lay lay premier ministre. moom moo ko xam parce que loolu jagleem la euh, nit ñi nag xam nga moom dañuy yàkkamti changement te itam ñu bari yàkkamti nañ mu ñëw xam naa ne. est-ce que moom mi ko war def daal xam naa bu jotee dana ko def. Macky mu commencé néew doole feeñu ci parce que gis nañu opposant bu mel ni Ousmane Sonko sous peu de temps euh, ravage yi mu commencé def ko ci mel ni <laughs> Barthélémy Dias ak ñeneen dem nañ tey ba. Euh, ñi gagné tey yenn cadre APR yi tey nekkuñu sax ay nit ñu koo xamante ni que am nañu yenn certain euh, yenn certain kii ci wàllum ñaan ko ci mel ni tey ko ci mel ni Ahmed Aidara tey gagné le frère du président de la République ak Guédiawaye est-ce que dafay wane nekk que askan ci boppam ñoo commencé faire changer les choses. man man sama jàngat ci loolu gisee wu ma ko noonu ni ma ko gisee mooy président Macky Sall moom su dee élection yoo xam ne moom élection am moo koy lijjanti. Mm. Euh, du demee noonu. présidentielle législative da ngay gis ne même yi ñu jëm da nga gis ne am na soppi ko bu baax parce que moom bu ko téyelee boppam doxal ko boppam moom du bokk ak moom bàyyi nag ay nit yoo xam ne ñoo koy doxal boppam parce que dafa manqué ay relais mhm. président Macky Sall dafa manqué ay relais trop trop trop trop ci dé tête yi ma xamoon depuis 2012 ba tey tête yooyu rek gis waaw te léegi euh, dem nañ ba amatuñu ay nit sax waaye boo na yàlla jégal du aw xas sax mais xam nga APR tam seen biir te politique amul moyen plus la am. waaw loo gën a dem da war a gën a dolli mbooloo mais ñoo fi nekkoon APR authentique yeeg nangam nangam yooyu yëpp amul solo. Macky 2012 Macky Sall na jëli na réew mi fi ne réew mi yëpp la yilif dañu war a wax ak ñëpp dem ci ñëpp wax ak ñëpp fexe faire ñu comprendre lan mooy projet yi mu teg Sénégal émergent lan la lan la fi def 2012 ba mu fi ñëw lan moo fi nekkoon actuellement ni fan la réew mi jëm ak fan la ko indi fan la toll yooyu moo mat wax nit ñi mais xëccoo ay diw lii diw laa gorante tànk. day feeñ lu bëree bari feeñ na ci lu bëree bari ci local yi passé ci biir mm. Dakar mm-hmm. xam nga da ngay xam ne daanaka perte gi ñu perte am na ñu ci ñoo xam ne seen courage le bras ak ñàkk jàpp bu ñàkk jàpp ak euh, xeex gu ñuy xeex seen biir tax na lu mm. bëree bari ñu ñàkk ko Dakar mm, législative yi tey bu ngeen demee xalaatu leen mu gën a pire yaakaaruma ko parce que moom ci boppam xam naa ne dina ci jël ay matuwaay te moom moom bu bu ci dëgalee loxoom moom lu bëri dana changé parce que moom man xam na li muy def xam na ñi mu war a waxal xam na ni mu war a doxale mais nag bu dee élection yoo xam ne moom bokk ci comme locales yi weesu nga xam ne da ciy mën a taxaw rek maanu am lu bari bari mën naa gis ay faay am ndax li ma la wax mm-hmm. moom la war a am da ko manqué lu baree bari loolu sa boo seetee gis nga ne moom ci boppam dem na ba comprendre ko boppam ba tax mu indi jokkoo ak Macky mm-hmm. kon mooy wax population bi directement amatul léegi benn intermédiaire mm-hmm. xam na ne manqué na ay relais moom ci boppam président xam na ko. moo tax gis nga jokko bi muy jokkoo ak jokkoo Macky bi jàpp naa ne dana saafara lu bari. parce que dana tax mu mën a wax ak population bi jeunes yi surtout. ba pare gox bu ne tam la fa manqué ci wàllu infrastructure jëm ci wàllu santé éducation jëm ci wàllu ay lu bare bare bari gis naa ne toujours dangay gis ne bu jëkkoog ndaw yi ñu ngi koy wax la fa manqué te day réagir vite. loolu jaakaar na dana indi sopp ko ko bëree bëri. parce que nekk day sori boo amul relais ñu rek day xaw jafe. Mm. te relais yooyu moom da ko manqué. loolu wax dëgg xam mais tamit ci li mu li mu jot a fay tamit aussi bari naa ndax barki dem dégg nañ ko ci problème location bi taxaw na ni <laughs> vraiment neexul ba neexul mais il fay. waaw dëgg la que xam nga am man mi waxtaan naa ci ay bailleur yu baree bari bari ak ay courtier mais politique bi ñu mën a def pour changer loolu leen rek la ci partout dans le monde boo demee ba ci Maroc gii foo mën a dem ci àdduna bi ba ci France foo mën a dem loolu li tax ñu mën a régler boobu problème mooy état day tabax ay. ay ay logements sociaux. yoo xam ne moom moo koy luyee bu nii dee luyee deux cent moom mooy luyee cent mille concurrence amee rek dana dara mën naa wàññi. mais ñoom ñoo tabax seen kër dem lebi banque tabax seen kër nga bëgg a ñëw wax leen conditions yi ko mën a wàññee te xamoo li ñu jël naat la ñuy fay banque par weer. loolu day compliqué mhm. mhm. leen rek moo ko mën a saafara état tabax ay logements sociaux di luyee booy luyee cent mille muy luyee ngay luyee deux cent mu luyee cent mille concurrence boobu su amee rek boo demee Maroc fu mu nekk nii. problème boobu rek la buur bi def rek ma problème problème location. Mm. tabax fu bare bare bare bare bare xam nga di ko di ko luyee li muy luyee ak ñi di luyee bokkul. da ngay mujj léegi ba yëre dañ lay fekk si parce que bu dul loolu doon doon te demande bi dafa bari. Mm. mais tant que loolu amul location fii mu nekk moom kenn mënu ko lëj. yaakaaruma ko parce que président Macky Sall maîtriser na. Ah, parce que frustration yi mu jur ci local yi euh, <laughs> te législative moo gën a te boo xoolee tànn gi mooy gën a néew euh, ci nombre. donc bu liste bi génnee xam nga tax du ma xaar loolu parce que gis nga politique loo jàll rek daf lay jox ay leçon lii ñu jàll ci local yi def naa jox na ko leçon yu bare bari yoo xam ne def naa noté na ko ci li ma jàpp te xam naa ne noonu lay demee ndax moo ñu gën a xam li mu war a def mais li ma gis mooy jàpp naa ne tànn bi muy tànnaat ci législatif yi dina nekk tànn bu mucc ayib boo xam ne ni li muy dem dana ci mën am ndam parce que enjeu bi dafa doy waar jàpp ma ne dana ci dana ci dana ci juum waaw ni ma ko xamee ak ni ma xamee politique

ku ne xam na ni jamono yi mu ngi ci mu ngi ci kaso bi ci ay kàddu yoo xam ne jàpp nañ ne ko tegoon na ko ci ki nga xam ne moom mooy euh, maître Djibril War ba maître porte ko plainte yoon yoon teg ko loxo ñenn dañ jàpp ni acharnement la envers activistes yi wala xëy na intimidation ci loolu nga xam ne moom mooy liberté d'expression. waaw laaj nga ma question bu ma neex nag. parce que mbirum activiste yi moom naam du ma ne bon na baax na ci benn côté. parce que am réew dafa laaj lu mel noonu mais dafa dafa dafa baax ñoom ci jën jëm bopp tamit seen i ñu di ko xoolaat parce que ku mel ne Cheikh Omar Diagne bi mu fi attaqué fii yoonu murit lu ne mu ko am na bi sax sëñ Bass loolu bariwul lu muy am ndax sëñ Bass ku ko xam-xam ne baaxul tontu waaw ci yar beeg teggin jeeg ak baaxaayam mos ta dén tontu kenn mais dem na ba muntu ko muñ ba am wax yu fi Cheikh Omar Diagne waxoon mu tontu ko kon loolu lay wane ne ay waxam ëpp na te li ma jàpp mooy réew mi bu ñu ko bëggee ñoŋal bëgg mu jag li nga xam ne mooy piliers yi muy këri diine yi fi nekk nañ leen dëgëral parce que boo boo yàggee tukki dem ci yeneen réew yëpp xam nga ne réew yi nga xam ne day am problème yëpp li am fii moo fa amul rek. Hmm. te loolu feeñ na ci bi affaire mars bi amee sëñ Mountakha yëkkati kàddoom opposition bi dañ ko déglu pouvoir bi déglu ko. Hmm. loolu bu ñu waxee ba ñàkk ko fuñ jëm dañuy yem ak ñëpp. yem ak hmm. Mali yem ak Côte d'Ivoire yem ak Cameroun yem ak fépp léegi nag loolu dañ ko war a sàmm moo a nekk ci kuréel gu mel ne ànd sàmm jikko yi doon yoon ñu daan ko tëj ko ñoom ñëpp ñu génn marché ko génne loolu man rafetlu ma ko te d'accord ci parce que dafa am loo xam ne jaaduwul Cheikh Omar Diagne warut a toog di tudd tarixa yi di tudd yoonu murid di ci wax loo xam ne nii kenn ko xam ne nii yow rek am nga pas-pas wala nga gëm Serigne Touba fa nga toog sa xol day tàng hmm. te loolu mënoon na jur fitna ndax am na ñoo xam ne seen pas-pas mën nañoo dox ba dajeeg moom tey jii defoon ko lu ñaaw wala ñu faat bakkanam sax mën na ci am mu jur fitna joo xam ne kenn du xam fu muy yem kon nag damaa jàpp ne ànd sàmm jikko yi ñoom ñi nga xam ne ñoo taxaw tey di ko défendre gelloon na ci ba muy wax tamit di wax ci yoonu murit di wax ci yeneen tarixa yi lu ñaaw ñu jugoon arrêté ko ne ko lii bokkut ak ñun li nga xam ne mooy li ñuy dox parce que mënoo wax da ngay sàmm jikko yi pare wëlbatiku di attaqué këri diine loolu mënta nekk te ñun ñëpp mu yàgg nañoo seetlu muy def ay propos ci këri diine yoo xam ne tegu ko fenn surtout ci yoonu waaw ci yoonu murit surtout yoonu murit nag waaw wax dëgg yàlla yoonu murit moom def lu ñu leen war a xasee ndax ku nekk xam na ne ay jàmbaar lañ ci liggéey rek lañ leen xamee kon lan la war a asar ne woo seen kaw bay wax wax yu ñaaw yoo xam ne ni day dem ba ñëpp di seen xol di ci tàng ba toll ne Cheikh Bass Abdou Khadir porte-parole yoonu murid dem ba koy tontu loolu ëpp na moo tax ñii nga xam ne ñoo taxaw tey nga xam ne ñoo ne ñooñ ko génne man li ma leen di ñaan mooy dañ ko waroon a àddu ca ba nga xamee ne moom lañ ko waroon a àddu tey nag moom nit la amal leen rek affaire te réew mi itam réew yoon la am na kum tuumaal te itam nañ bàyyi xel bu baax ci yàq deru nit xam nga yàq deru nit dafa dafa dafa dafa doy waar. Mm. Mm. tuumal as nit day am njaboot am ay jabar am yëpp nga xëy teg ci tuuma ci moom loo xam ne nii daanaka njabootam dootuñ nelaw loolu lañ ko sàmmonte Sëñ Tuubaa day wax ne isturil ayba mastataxta bi sumtin inna fi sumti raatan li samooti na nga na nga na nga suturaal sa ayib bi nit ñi ci ci ci ci sa kam kàttan ci noppi ndax kat noppi mooy noflaayu mooy mooy noflaay mm-hmm. dégg nga léegi nag maanaam jël wax ju ñaaw di ko wax nit rawatina lu mel ne góor jigéen nga xam fi mu toll nii. maanaam ni mu sensibiliser nga. Mm. sensibiliser nga xam nga kilifa kilifa sensibiliser nga toll noonu. Mm. am nga yor ay ndomba tànk ci dëkk bi. Mm. ah yor njaboot nga dem teg ko ci daram ngeen dem ci yoon ñu daan la. ngeen taxaw ne nañ ko génne. wax dëgg yàlla waaw xam nga ne góor jigéen la nga waroon génne ay preuve yu tax. même su amoon sax tey dëgg mu doon ko sax l'islam da la permettre nga wax ko. suñu borom dafa dafa dafa suturaal doomu aadama. waaw amul même su fekkoon ne dafa am waroo génn di ko wax القرآن دف دف سطر دوم عدم بأعتقد يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت خير بيوتكم حتى تسألني سورة سليمة ما أنا بقول دقيت نيجو هم ندوس نيجس تفوق ولا نمي يوم لما يبان معي عند بيت نيجو من يكتب المورط أو يكتب عند جسكو كان سطر عن دوم عدم ولا تجلس سولا واه بني من سطر حجر عدم كفت ما أنا نيجي دف جي كل سجاد ولا نيجي جسو يدو بربهم ما أنا لا لا يدفع قلوم دول دف ورسالة سامدكو ترى لبت سطر دوم عدم على بيك ما même njaaloo sax li fi ne li mu koy tere tere tere tere. dalaa mm. may dalaa wax ne boo fekkee dem nga ba di ko tuumaal nit na am ñeenti seede yu bokkut te wootante wuñu. Mm, loolu mooy wane ni que bu nga loolu. dafa mm. sutura dafa baax. te loolu dafa jiñ ci réew mi fi mu nekk nii. maanaam xaawente sutura bi dafa ëpp. ku mel ne Cheikh Omar Diagne nag même su fekkoon ne ki mu doon wax jii sax loolu dëgg la ci moom sax amul droit wax ko bu nekkee li muy woote ci diina mi ci moom. rawatina nag mu teg tuuma yoo xam ne amu ci benn preuve léegi nag bu demee ñu daan ko ñu taxaw ne nañ ko dindi nañ ko génne man ñi koy wax ne nañ ko génne nañ ko génn nañ ko nañ ko ubbi te dégg naa ci yoo xam ne sa teguwut ci yoon ndax buñ ko génne woon ñu dem ñun jëli ko loolu sax kenn war ko wax ci réew moo xam ne réewum démocratie loolu wax ju yàq la waaw loolu wax yi wax yi wax yi kenn xamul waaw moo tax daal bu ma sañoon waaw bu ma sañoon ñu gën a xoolaat toogaay yi ñoom seen jëmi bopp ak itam ëllëg ci biir ku nekk seen kuréel bu ëllëgee buy wax loo xam ne nii luy déranger ñëpp la ñu teel koo arrêté waaw gaa ñu baax ñi nag seen yaram yi tooke la waaw la tax mu songu nit ba ñu jàpp ko loolu moom xam naa ne leneen la moom waaye suñ tubaa nag moom mas naa wax ne man du ma fayu ba ma mosee ñu tooñ ma ma muñ ñu fay ma fay ñu fay ñu fay ma fayul ma te laa te laa noppee mosu koo def sax waaye waxin la hmm. moo tax moom mos sa fayu nee na ba ma mosee ñu tooñ ma ma muñ ñu fay ma fayul ma laa gëj fayu kon nag jàpp naa ne moom ci boppam moo dugg fu mu war a tey lii ko dal dal ko kon nag nañ xam ne moo tooñ ku tooñ nag li ci yoon wax def nañ ko ñu ñu ñu nangu loolu te ñu sàmm daal li nga xam ne mooy suñu dëgër laay ci dëkk bi muy këri diine yi. Mm. ak bàyyi wax ju ñaaw jëmale ko ci ñoom. Euh, mbokk yi euh, mu ngi noonu Cheikh Lat Touré defe naa ni débat bi am na pertinance vraiment euh, réponse yi nekk na tamit aussi ay réponse yu am pertinance tey lii la ñuy indiloon café Ramadan ma ànd ceeg Cheikh Ahmadou Bamba moom tamit Cheikh Ahmadou Bamba ñaar di suma xarit ñu seet si woon Cheikh Abdou di leen jox dig daje ci beneen numéro café Ramadan su Dakaractu